biir parti yi peut-être que am na ci beneen partie bu du nekkul ci pouvoir bi boo xam ne am na ko fa jóge <coughs> moment bi fi bu fi mustapha euh, Diakhaté di di wax wax ju bëri bii ak gé def sorti yu bëri yi est-ce que moment boobu ndombo tànk bi mu yaakaar ni war na ko am am na ko parce que aussi xaarul ba ndombo tànk mi ñu ko tegaloon yu am doole yi mu mu mu vraiment braqué wu contre contre contre le, le régime yooyu mën nañ ko mën nañ ko poser mais je pense que euh, li ëpp solo mooy euh, pour man genre situation yu mel nii warul jël espace bi mu jël fii si kii ci réew mi coow li mu indi te en réalité. li war a intéresser sénégalais bi loolu dafa war a nekk lii dafa war a nekk détail ce problème là warul nekk loo xam ne si de au devant la scène ñu ciy wax comme si dafay impacter un peu ni ñuy yoree suñu réew mi bi ñuy falee président Macky Sall ak léegi ça fait quasiment un an non waaw li ñuy xaar ñu sénégalais li ñuy xaar mooy lan la ñuy liggéey courant bi yokk nañ ko est-ce que dinañ ko wàññi lii ak lële loolu la ñuy xalaat mais je pense njàng mi njàng mi sooxee na mais li li li li grave mooy mooy au lieu d'avoir peut-être benn opposition man je man je m'attends à ce que opposition bi mu yëngu plus que benn bu nekk ci biir parti accès à, à tous les médias et finalement on a fait un problème d'État alors que pour man li ëpp solo c'est pas Moustapha jaxate bu am ay problème ak euh, waa waa APR c'est effectivement quelque chose bu bu ñu mën a brosser wax si mais kii bi ñu ko jox importance bi ñu ko jox comme keroog bi mu ma fi laajee ci waxu ñoom Cissé Lo je pense que ñun aussi ñun ñëpp ñu nga xam ne si média la ñu nekk en général war ñu nekk dañu war bañ aussi nekk benn bët caisse de résonance boo xam ne gars yi dañu jékki-jékki rek teg benn affaire pendant un mois on ne parle que de ça fekk y a d'autres choses beaucoup beaucoup plus importantes yoo xam ne war nañ ci war nañ ci jublu alors euh, ñu dugg kon ci euh, thème bi ga gan gi bon nim la xamee politigo trop mais bon bu dee am nga ci gis-gis euh, ce qui se passe la avec Cissé Lo bi ñëw <laughs> Moustapha jaxate maa ngi jéggalu ci Cissé kenn dàqu ko te te bëggu te bëgguma déedéet xaw xaw xaw ma dara lu ñu lu ñu xawul mais jubóo président recevoir na ko ah loolu la bëgg alors Moustapha jaxate mi mi ñu génne ci APR euh, bu dee am nga ci gis-gis Souleymane Diallo maa ngi leen di di leen sant bu baax. Euh, donc di nuyu téléspectateurs yi di rafetlu également émission TFM bi surtout importance bi ngeen joxe éducation. Mm. yaakaar naa li bu ba wax daal man loolu mooy sama gis-gis man daal yaakaar naa li gën am solo tey tey dans notre pays muy les questions d'éducation. les questions de santé le sociale lépp loo xam ne pour ñu am émergence il faut ñu lijjanti ko. man daal si loolu laa bëgg a wax. léeg moom vraiment bàyyi naa ko kon kon ci loolu lañ lay laaj ay ci ñu ñu ñu dem si enseignants yi ñu ngi ci mbedd mi bu ñu waxee loolu mooy euh, grève. Mm-hmm. mercredi ak jeudi ngeen marche ban xayma nga ciy def déjà ci grève boobu ndax euh, vraiment am na impact suivre nañ ko et après ñu dugg si euh, détail yu lu ko waral les accords du 30 avril 2018 qui n'ont pas été respectés. C'est ça yaakaar naa. tey xayma bi lan la xayma bi kay mooy grève largement suivi ndaxte ñi ko ñi ko lancé mooy le G7. Hmm. G7 nag mooy kuréel syndicat yi nga xam ne ñoo gën a représentatif ñuy defee élection yi fii si Sénégal mooy syndicat yi nga xam ne ñoom ñoo génn am représentativité euh, moo tax ñooñu d'habitude à sa fois bu ñu lancé plan d'action. largement jàngalekat yi dañ koy suivre dañ koy suivre parce que déjà G7 moo ko lancé mais dañ koy suivre aussi également parce que euh, li ñuy xeex euh, gis nañ seen bopp xeexal ñu suñu bopp ñun en tant que secrétaire généraux dañoo xeexal jàngalekat yi euh, loolu moo tax le plan d'action a été très largement suivi te marche bi ñu def Dakar fii nii également ça a été un succès parce que dañ ko ñun dañ ko localiser woon dakaar kese mais am na ay jàngalekat yoo xam ne jóge nañu ci diwaan vraiment ñëwal seen bopp participer ci marche bi mu nekk un signal fort boo xam ne dañ ko envoyé à l'endroit du gouvernement euh, pour ñu mën a ko en tout cas euh, décoder xam ne jàngalekat yi mobilisé nooñu comme ni ñu daan mobilisé wu en 2018 bi nga xam ne euh, njàng wi également sooxe woon na beneen li ma si teg mooy que ne sànq saa bi ñuy tàmbali noonu effectivement njàng bi njàng bi à chaque fois on en parle mm-hmm. je me rappelle bi mu fi mujjee ñëw aussi si lu mel nii la woon boobu tamit Euh, point bi c'était quoi euh, protocole d'accord mooy accord yi nga xam ne signé nañ ko te respecté wuñ ko loolu moo indi jafe-jafe si biir njàng bi ak njàngale bi cette fois-ci ce sont les accords du 30 avril comme je disais 2018 qui sont concernés 20 mois bi ngeen ko signé nguur gi defu ci dara wala am na lu mu ci def bon da leen doyoo euh, boo koy xam boo koy xayma xam nga ne 2018 ba 2020 defuñ si dara hmm. loolu tamit xëy na mauvaise foi la hmm. am na lu ñu si def lu tuuti la mais boo seetee exactement li nga xam ne moom la ñu signé. Mhm. mooy que ne dañ ne woon dématérialisation bi parce que tey tey jafe-jafe enseignant yi mooy question de carrière question de carrière yi mooy seen acti yi bu nekk da ngay avancé dañuy avancement soit chaque deux ans soit automatique ou bien après da ngay def avancement au mhm. choix. boo defee examen sa diplôme dafay génn nga war am arrêté diplôme pour ñu mën la titulariser wala euh, nga changer corps. donc ñu war la reclasser dans un autre corps donc act yooyu nga xam ne mooy acte de promotion nga xam na képp kuy liggéey effectivement da ngay góorgóorlu di bëgg avancement acte yooyu ni muy génnee jaaduwul yoon moo tax di nga gis jàngalekat mu ne fii pendant quatorze ans salaire bi yokkuwul te pourtant moom waroon na avancer mm-hmm. mais mësul avancer si lenteur administrative yi mm-hmm. donc loolu day tax ba nit ñi dañuy jàngale mais amatuñu motivation. Mhm. parce que liggéey boo xam ne amul avancement. doo si am motivation. donc yu mel noonu mooy lenteur administrative dañu ñëwoon li ko waral mooy gestion euh, dossier yi papier kayit kese la. Mhm. bu jógee par exemple fongo lim bi dugal say oto indi ko ba dakaar mhm. dossier bi mën na réer entre euh, Kédougou ak ministère de l'éducation jëlee ko foofu yëpp ko fonction bi mu def le circuit des visas. tous les ministères yi war a contrôler. dossier yu bëri mën na réer mën na yéex ñu ne léegi nañu def dématérialisation parce que jamono dafay dox dañoo nekk si monde boo xam ne technologie yi dafa avancé léegi dañ ne dématérialisation bi mooy que dossier bi bu ñu ko déposé par exemple Kédougou hmm. dañ koy scanner donc traitement électronique lañ koy defee hmm. dossier bi physique bi foofu lay yem donc loolu lañu d'accord ak ñoom mais loolu ñoom commencé nañ ko mais au niveau central kese lañ ko def dañ nekkoon nag. c'est-à-dire ministère fonction publique fonction mhm. publique kese. Mhm. fii si Dakar. fekkee bu yemee foofu du am impact ndax di dossiers yi si si si région yi lay jógee loolu un la mhm. te loolu également am na bi leen lu muy impacté mooy li ñuy wax mise en solde bi ñu dajee ak président la dernière fois dafa ne woon léegi mise en solde chaque année dañu jël dix mille euh, contractuels muy maître ak professeur titulariser leen def leen ay fonctionnaires chaque année daal le budget mi ngi si budget bi loi de finance bi boo xoolee mm. mais lentre administrative yooyu ma la wax mooy ni ñuy génnee actes yi au lieu ñu génnee par exemple des actes pour dix mille personnes yoo xam ne dañu war a mettre en solde cette année boo seetee cinq mille et quelques la ñu génne moitié bi moitié bi mm-hmm. donc ce qui veut dire également même institution yi président di joxe ministre yi ba ñu inclure ko daal la loi de finances loolu déjà c'est un problème bu ñu ko respecté président également dafa ne woon léegi pour les rappels parce que aussi état bi dafay yokkal jàngalekat yi ay bor yu bëri kii euh, kii xaalis bu bëri bor la. mooy par exemple koo xam ne da nga waroon avancé depuis 2008. Mm-hmm. commission siégé wul ou bien yow sa note kenn mus ko transmettre. Mm-hmm. ñu compétir la si commission bu mm-hmm. nga avancé ñu war laa defar un rappel parce que depuis 2018 waroon nga avancé mais dañ defar un rappel de 2018 de 2008 ans. loolu boo ko multiplier par le nombre d' xaalis bi day dem ba tollu mat ay cinquante soixante wala ak cent milliards de francs CFA boo xam ne état bi daf ko fay si ay rappel hmm. boo xam ne xaalis boo xam ne état bi moo koy sénégalais ak jàngalekat yi hmm. que dafa amoon problème président dafa ne woon la dernière fois comme que chaque année vingt cinq milliards lañ doon dugal si budget bi hmm. pour fay ko rappel jàngalekat yi léegi nañ ko yokk sax benn vingt cinq milliards bu nekk cinquante milliards boo xam ne au moins dans trois ans fekkee kenn dootul waxati affaire u bor mais bool bi tey la gën a bëri ndaxte su fekkee ne par exemple lenteur administrative yooyu daf fi jóge woon. Mhm. kon dette bi di reconstituer. Oh mais chaque année. dette bi dafay effectivement li si gën a metti nag. mooy que xaalis boobu bés bu ñu la koy fay. Mm. dañ si teg impôt boo xam ne dafa jéggi dayoo finalement. beneen problème beneen problème bi tamit mooy wàllu création de corps de des administrateurs scolaires parce que jamono aussi dafay dafay dox ba nga xam ne tey tey euh, ñiy gérer établissement yi parce que euh, dañ leen war a former. parce que enseignant yow dañ laa recruter former la pédagogiquement yow da war a jàngale. mais tey tey da ngay xool établissement yëpp pratiquement enseignant yi ñoo nekk directeur ñooy nekk principal ñooy nekk ainsi de